des plateformes des artisans et commerçants du Sénégal di apprécier réduction denrées de première nécessité lu mel ni ceeb suukar diwlin ak ciment park nag di interroger wu lu jëm ci wàllu qualité yooyu le produits. Euh, commencé nañu wàññi ñu ngi rafetlu wàññi bi mais man wàññi bi li nga xamante ne moom laa ci am comme appréciation mooy li nga maîtriser euh, mu mel ni ceeb. mu mel ni diwlin mu mel ni yeneen daane de première consommation yi bu fekkee ne da ko bëgg euh, wàññi te maanaam dépendrul totalement ci ndax du nekkul loo xam ne da koy bàyyi ci réew mi nekkul loo xam ne da nga koy produire fii donc marge de maneuvre bi ngay am bu boobaa bu néew lay nekk xëy na loolu moo justifié ñii ne li nga ci wàññi bari na ñii ne li nga ci wàññi bariwul wàññi njëg yi lu baax la waaye améliorer pouvoir d'achat askan wi loolu tamit lu gën la. ba gënal dëgg dëgg dëgg ci wàññi mooy nga fexe nit ñi seen pouvoir d'achat mun a yokku ndax pouvoir d'achat mun a yokku mooy nit ñi am ay liggéey ndax da ngay dugg ci benn famille nos famille sénégalaises macha allah elles sont nombreuses boo duggee ci benn kër da ngay gis ne benn nit mooy jël en charge tout la famille. parc di invité état bi mu gën a yaatal réduction ci yeneen denrée BTP déedéet yàlla bois te bois bi ñun ñi nga xam ne am nañ ci xam-xam principalement artisan yi war nañ nañ ci wax ba seet nu ñu ko wàññi te bois bi mën nañ ko wàññi ni ñu koy wàññee mooy ñi nga xamante ne ñoo yor monopole bi ñu contrôler leen organiser leen ba nga xamante ne bu ñu du du ñoom pris yi ñu indi rek ñun ñu mën ko jënd. ndax wàññi njëg yi dana nekk lu yàgg lool li ci kanam rawul gët.